والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه mbokk biru di ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk tënku ci ndigali borom bi azza wa jal di wattandikuloo suñu bopp di leen wattandikuloo bëtt ay tareem di jëmale suñu xutba tey ci fàttali ab dénkaane boo xamante ne bii jibril alayhi salaam moo ko dénkoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax na ci xadis yonente bi ne jibril da ñëw na fi man nama yow muhammad dundal lu la soob waaye na nga xam ne sa mujj mooy dee da ngay bëggal ku la soob waaye nanga xam ne lu yàgg-yàgg da ngay tàqalikoo ak moom jëfal lu la soob waaye da xam ne loo jëf da dajal ak fayam maa ngi lay xamal ne ab jullit da lay tedd ngaam di darajaam di kaweem mooy muy jóg guddi di naafila maa ngi lay xamal ne ak jullit lay tedd ngaam mooy mu doylu walif nit ñi kon juróomi mbir yoo xam ne jibril nga xam ne moom la yàlla wóolu ci asamaan moom la doon dénk ki yàlla wóolu ci kaw suuf ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy juróomi mbir yoo xamante ne bi yu ama am solo la yu foor la yoo xam ne laaj nga taxaw seetlu laaj da sa tantal ci bépp jullit boo xamante ne bi bokk nga ci xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit dénkaane bi dafay xam la ne nu waay mën a toll ak foo mën a yegg aaja nga ku la waar aaja nga ku la delloo ci sa boroom aaja nga ku la fàttaloo yàlla fàttali yàlla moo tax sëñ Abdul Ahad Mbakke radiallahu anhu daan wax ne nit ki bu demee ba àgg foo xam ne kenn du ko wax ju dëgg ne jàng alquran alquran di ko wax dëgg di ko waar ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci gën a tedd ci jaam yi moo aajowoo ku ko fàttali aajowoo ku ko waa jibril ñëw jóge asamaan dénk ko juróomi mbir loolu lañ ci jublu mooy xeetam wi bàyyi xel loolu ginnaaw mbokk yi lañ taxaw seetlu ci dénkaanam jibril bu am solo boobu mu dénk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu njëkkeeg moom mooy da ko fàttali dee ndax li gën a raglu gën a njàng ci lu nit di dajeel ginnaaw ak dundam jeexee mooy faatu mu ne ko is ma chita fa innaka mayitun lu la soo dundal waaye nanga xam ne da ngay dee shaayir ba wax na soo dundoon junni at yoo xam ne feebaroo ci benn yoon amoo ci benn yoon lu la naqari fa fa gën a rafet la nga gën a bëgg ci looy sol ak looy lekk ak looy naan ak fooy dëkk ak fooy war moom nga ca am bis bu faatu ñëwee sa guddi gu njëkk ci bàmmeel da fàtte lépp moo tax jibril na ko ish ma chita fa innaka mayitun lu yàgg-yàgg ci dee nga jëm te luy ñëw lu mu sori sori jege na agsi na ba noppi lu tax mu fàttali ko dee ku dee day tax xolum nit ki du aju ci àddina taq ci ba mu fàtte ëllëg du ko waajal du jëf ngir moom fàttaliku dee day tax bànneexi àddina yi ak bëgg-bëgg àddina yi doo topp ci ginnaawam di daw mu jaral la lu ne jaral laa faat wax jaral laa fen jaral laa wor jaral laa lu nekk ci lu loo xamante ni moo la koy tax a am moo tax mu ne ko ish ma shi'ta fa innaka mayyitun fàttaliku dee day tax nit ki ay mbébétam gàtt mu xam ne am na geneen dund goo xamante ne bii moo ko tax a jóg fii ab jaaruwaay la boo xam ne dafay jaar boroomam di ko natt waaye dund ga dëgg mooy alaxira wa ma hadihi alxayatu dunya illa lahwun wa laib addina lépp ay caaxaan la ay fola dund ga dëgg mooy alaxira wa inna daara alaxira la hiya alxayawaanu law kaanu yaalamuun li ko jibril njëkk fàttali mooy isma sita fa innaka mayitun da nga dee da ngay dee moom euh, kenn ku ne xam ne na da dee waaye nag lu ëpp ci ñun jëppul na tay la jëppul na léegi la dafa jàpp ne da fi nekk ba lim bëgg a def def lépp mu def ko mu di ko fàttali ne ko nag sa bakkat nekkul ci sa loxo ci sa loxol borom la nekk ca waxtu ko soobee la koy jël kon fexeel ba lim la fi indee ca mooy nga jaamu ko nga nekk ci ca bañ a nekk ci li la fiy tax a nekk ba fàttali la fi tax a ñëw mu tekki lan wax bi man chita fa mu mufariqu ku la soo bëggal lu la soo bëggal waaye na nga xam ne da nga taqalikoog moom ci nii mbaa ci naa kon nanga nga wattandikoo fax soxlaal sa xol ci àddina ak matérielu àddina bi nga xam ne day jeex moo xam ak njaboot la ay soxna la wala ay doom wala alal la wala ay kër la ba mu dox sa digganteeg jaamu sa boroom fexeel soxlaal sa xol ci li nga xamante ne bii doo taqalikoog moom mukk du taqalikoog yow mukk mooy jaamu sa boroom mooy tudd yàlla ndax nit ku faatu ñu koy robi jëfam dana ko topp alalam dana ko topp ak njabootam dana ko topp waaye ñëppay wëlbatiku bàyyi fa jëfam dong kon mu fàttali ko li nga xam ne bu ñëpp demee bu wéttal yëpp demee moo des di la wéttali muy jëf ju baax mu ne kon na nag sonne jëf ju baax wahdid man shi'ta fa innaka mufariqu kon li nga xamante ne bii mooy des du taxalikoo yow da nga ko sonne looloo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne li ma gën a bëgg li sedd sama xol dëgg dëgg mooy ja mooy julli wa ju'ilat qurratu ayni fi salaa benn bi senante bi sallallahu alayhi wa sallam guddi mu aaye ci néeg sayyidatuna Aïcha muy soxnaam su mu gën a bëgg ñoom ñaar ñu bokk sàng sangu ci benn mbalaan yonent bi bëgg a jóg julli soxna si ne ko dama la bëgg a jege dama la bëgg lépp loo xam ne dafay bégloo mu ne ko zarini ya aïcha ataabadu li rabbi aïcha bàyyi ba di jël sa tale ki jàpp taxaw di julli di jooy di jooy ba ay peggam lépp tooy yërëm yépp tooy mu continuer di julli di jooy di jooy di jooy ba suuf si mu doon si jootal fépp tooy xet kooku de fàttewul dénkaane jibril boobu ne ko waxoon ne ko wax bi man chita fa innaka mufariqu bis day ñëw nga tattali koog soxna si kon bu mu dox sa digganteeg jaamu yàlla bu mu dox sa digganteeg déglu sa borom mu teg ñetteelu dénkaane ba ne ko wa amal ma chita fa innaka majziyun bi lu la soob nag defal moo xam lu baax la wala ab safaan la lu la soob defal mbokk yi ak xuppe la i'malu ma chitum du digal fa man chaa fal yumin wa man chaa fal yakfur du digle du tànnloo kum se kum soob def kum soob bàyyi waaye ak xuppe la noonu sëñ daara bay jàngale jox ab bind donga sago ko ba mu xam génn muy xoolee ka tappale mu ne ko ah, ah defal loola soob loolu ak xuppe la mooy ba waxtu tari jot rek moo tax jibril wax yonent bi ne ko waamal ma chita fa innaka majziyun bi lu la soob jëfal waaye loolu ñoo jëf lañ lay moom lañ fay moo xam lu baax la moo xam ab safaan la xamal ne faw dee nga sa kanam ca ginnaaw dee danañ la réglé danañ la fay tamit la nga doon jëf bu dee lu baax lu baax ngay dajeel bu dee ab safaan ab safaan ngay dajeel nit ki moom lu nekkee woon àddina bu dee faatu ci loola lay dee ca buy waxtu bu yóbbu dugg bàmmeelam dana xam ba xam lu baax la wala ab safaan la bu dee lu baax te lay gis ba abadan bu dee ab safaan wala iyaasu billah moo tax sayduna euh, sayduna Usmaan radiallahu anhu di wax ne bàmmeel de boo ca muccee rek mucc nga waaye boo ca muccul tamit mucc wal iyaazu billah yenañ ginnaaw doomu aadama ak dundam dafa gàtt kon boroomoom bàyyiloo ko xel ëllëg mu war a dundal ak dundam ci jaamu yàlla ak Euh, fàttali ko boroomam moo tax jibril bàyyiloo xel yonent bi sallallahu alayhi wa li ga xam ne nit ki bu faatu moom la njëkk a mu teg ca ñeenteelu dénkaane ba mu ne ko yaa muhammad sharafu lmumini qiyaamuhu billeyl tedd nga dëgg nag daraja dëgg nag mooy nit ki waxtu bu guddi jotee ba ñëpp tëdd di nelaw kenn ku nekk wéet ak soppeem mu jóg jàpp wéet ak boroomam julli ay rakk ak lu mu néew néew di ñaan boroomam ay soxlaam di ko diis ay xaajoom di ko toroxlu ci kanamam di wone ak lottam waxtu wu nekk loolu doon jikkoom sëñ Tuubaa radiyallahu anhu mi ngi wax ci masaalik ne ëll yowmal xiyaam ne ñëfa gën a ñàkk gën fa aw naqar ëppale aw naqar mooy ñi nga xamante ne bii de dañoo neeraloon li nga xam ne mooy taxaw guddi naafila moo tax jibril wax yonent bi ne ko sharaful mu'mini qiyaamuhu billayl nit ki mën naa faatu diir bu yàgg a yàgg waaye naafila yem daan naafila taxaw guddi di ko naafila guddi da koy jëriñ ci bàmmeelam di ko fa wettili di ko leeral moo tax li gën ci lu ab jaam di jaamoo boroomam ginnaaw julli farata yi mooy naafila guddi xam ngeen ne julli dafa làmboo mbooleem xeetu jaamu yàlla yi jàng alxuraan a ngi ci sàbbaal yàllaa ngi ci wax màggal yàllaa ngi ci laa ilaha illallah mi ngi ci julli jurante bi mi ngi ci ñaan ngi ci toroxloo ngi ci rukoo ak ngi ci sujjóot ngi ci taxawal ngi ci lépp a ngi ci ki nga xamante ne bii nag noonu julli màgge yëg gum ko yëg ba sax julli farata yi rek doyu ko bu julli guddi jotee ba ñëpp tëdd mu jóg di naafila ay naafilam yoo xamante ne bii da koy dolli koo yoo xamante ne bii da koy jegeeloo boroomam yoo xamante ni da koy fàttali mu doon ak wéttalam ëllëg moo tax yonent bi ne afdalu salaati baada almaktuba alsalaatu fi jawfi leyl kon xam ngeen ne julli juróom moom ki koy doya dal du naxaw du guddi kon kii doya dal farata yi kooku waxuñ naafila yi waxuñ ko waaye kii naafila tamit guddi kooku nag kenn ku ne xam ne ne ko sàmmanteeg julli juróom la kon ki nga xam ne moom xam ne ne dundug àddina dafa gàtt ba jéggi na yi nga xam ne mooy ndigal yi sax mooy farata yi waaye li des ci ak dundam du ko sànq da koy jéem a soxlaal ci loo xamante ne bii lu koy amal njariñ la ëllëg rawatina li nga xam ne mooy naafila guddi jibril mu motti leen dénkaane bi ne ko waalam ann izzu lmumini istignaauhu an innaas soo bëggee tedd nag doon ku të ku kenn mënalul dara mooy dangay ngay doylu walif nit ñi ajal sa xol ci sa boroom joyalal say soxla ci sa boroom del saafarawu ci sa boroom del woo sa boroom yàlla bunt bi dox digganteem ak jaam bi da koo ubbi ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun bu la sama jaami laajee anaman nee leen ku jege laa yasaluunaka yi ci nekk alquran yépp yonent bi yàlla da koy wax nag buñ la laajee nangam neel nangam yasaluunaka an ilxamri qul yasaluunaka an ilyataama qul yasaluunaka an iljibaali qul يسألونك عن القرنين عن ذي القرنين قل وإذا سألك عبادي nag anni fa inni qarib maa ngi nii mooy tontul boppam loolu lu ñu ci jublu bañ kenn di dox doxale ko soxlaa woo ko saa yoo jàqee mooy sa yitte yépp nga jëmale ko sa borom bañ ko jëmale ci mbindeef yi sëñ Tuubaa radiyallahu anhu dafay wax ne koo xamante ni bii jël nga say soxla jëmal ko ci nit ñi de day dolli ku rek te du faju saa yooyu jëmee say soxla nag jëme ko ci sa borom mu faju kon lu mu ci jublu mooy nit ki bañ a doxale kenn digganteem ak boroomam di ñaq fexe ba la muy lekk ak la muy naan ak la muy sol mu di ko ñaqal boppam bañ di sukkandiku ci nit ñi bañ na doon koo xamante ni bi dafay wéeru ci nit ñi kon mbokk yi juróomi dénkaane yoo xamante ni bi jibril moo ko dénkoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ne ci ñun ci aw xeetam war koo fàttaliku ba ca njëkk ci fàttaliwaat mooy dana ko dundal lu la soob na xam ne sag mujj mooy faatu bëggal ku la soob wala lu la soob na nga xam ne da nga tàqali ko moom bis loo lu la soob tey mën nga koo jëf loo jëf lañ lay fay na nga xam ne nag tedd nga ak jullit akuk teewam mooy muy taxaw guddi di naafila ak tedd nga am akuk doyloom mooy mu fexe ba doylu boroomam wu def nit ñi yal na yàlla defal digg ak topp yal na yàlla def ay jaam yu mu xirtal suñu jaamu ko ca mu nangu